ngeen dund sax dootu amati sens gis ngeen ñi bu ñu leen jàppee gis ngeen ñi mer bu ñu leen mere gis ngeen ñi en guñ am ci yéen gis nga ñi bu ñu leen jàppee billaahi di ngeen rëccu lu leen seen ndey yi doon juree fii ci kaw suuf. nañ dem rek toog leen di xoole rek ah tey kon xeex bi le 17 bi anamu ana 17 bi ana le 17 bi amuñu ndam ni le 17. bi amuñu ndam ana le 17 bi je vous demande ana le 17 bi et la réaction populaire et cette population sortons en masse instant yii nii nii nii nii Dakar dafa war a yëngu on a perdu la bataille je parle pas de la guerre la guerre xeex rek moo ko mën a fii amul leneen il nous manipule du jour au lendemain il nous manipule et pourtant Siré Ali Ba waa léegi lan tax jugement wu saaba si baaxul répondez-moi lan moo tax jugement wu saaba si baaxul lan lañ ko toppee dañ ne am na frère am bu nekk Pastef du loolu lañu wax Siré Ali Ba am na ñaari jarbaat yu nekk France nekk Pastef kenn ki policier policier la France jarbaat yu ko jege lool kenn ki jigéen la ñooñu ay waa Pastef lañ même France xam nañ leen dañuy ànd ànd nañ wan temps passé seen manifestation yi ñoom ñaar jarbaat yooyu ñu ngi ànd ak doomu euh, su lay su lay kii bu nekk Thiès xamante nañ ay moroom lañ ñay ànd su lay Euh, su euh, su lay su lay kii bu nekk Thiès waa jooju noonu doomam bu nekk France dama leen laaj ko ko moom ak ay jarbaatu Siré Ali Ba ñooy ànd ñooy ànd suba ngoon guddi ak bëccëg waa Pastef lañ nan la ñuy mën ab jugement parce que nee nañ kii frère am fii la ne Siré Ali Ba ay jarbaatam ñi ngi France góor ak jigéen ñoom ñëpp kenn ki mi ko tuddee ñi ko tuddee yaayam Birame Souleye doomu Biram Souley Biram Souley mii ngeen di gis doomam ak jarbaatu Siré Ali Bay ñooy ànd sëram mooleen leen jur Biram Souley Diop doomam ak jarbaatu Siré Ali Ba déglu leen bu baax rakkam bu jigéen ay doomam ak doomu Biram benn doomu Biram Souley Diop ñooy ànd ay waa Pastef lañ ñooy ànd suba ngoon guddeeg bëccëg di dem ci marché yi partout kon léegi dañuy éliminer benn jugement juste parce que kooku frère am fële la bokk ñu éliminer ay jugement donc ñu ne loolu nil na sénégalais lu ko guddal lu ko gàttal barke alxuraan ñun moom damaa bëgg ñu ñu tenirante langage de vérité parce que ñun dañu cee perte lu ne si vous avez pas n'avez pas décidé de se battre libérez-nous si vous avez décidé de vivre l'enfer sur terre libérez-nous si vous avez décidé de vivre le reste de votre vie dans la soumission libérez-nous si vous avez décidé de ne pas se battre libérez-nous si vous avez décidé dee ci torox tànge libere nous si vous avez décidé kontaan ngeen ci seen pauvreté ci seen torox tànge libérez-nous libérez-nous nag mooy bu kenn ñëw di ma tegal benn dossier buñ leen di toroxal muñ leen buñ leen di rey ci biir usines yi ngeen di liggéey muñ leen buñ leen liggéey loo fay ñu leen muñ leen bu kenn ñëw di jooytu ci ñun di jooytu ci ñun parce que vous avez choisi de vivre dans l'esclavage dans la pauvreté extrême dans l'injustice dans les l'oppression et dans les tueries rey nit ñu boo leen ko décidé ngeen teel ñu libérer parce que ñun wax nañ leen solution bi bu yàgg ne leen lu dul xeex mënul libérer Sénégal lu dul xeex loolu rek lañu ñu ragal Macky bu mu jëndee justice bi du léegi te da ko jaral Ousmane Sonko éliminer Ousmane Sonko da ko jaral caaxaanewu ko CEDEAO bu mu nekkee situation boo xam ni xam na ni fii day ñàkk dafa jël avion am dem ba Côte d'Ivoire gisante président ivoirien bi nga xam ne ñoom ñoo jiite CEDEAO mu wax ak moom génn ay liasses d'argent jox ko ne ko demal nga jox ko ñooñu ñu dem jox ko tribunalu CEDEAO ils ont encaissé dëgg baal bi donc da ko ko jaral moom parce que tamit dundam moo ci nekk ah deem moo ci nekk Macky Sall préfère rey la ka rey boppam moom deem def ci nekk deewu njabootam dañ ci nekk Ousmane Sonko toog moom da gis deem rek la gis Ousmane Sonko toog dafa gis ni deem la Ousmane Sonko toog dafa gis ni torox tàngeem la ak njabootam mu gar ci bakkanam bu may dee naa dee ak moom naa dem yóbbaale ko. waa léegi ñun sénégalais dañuy seetaan moom mu dee yóbbaale waa ji du ma rey waat bala ma dem ak moom ba fu mu yem neex mais moom loolu lay xe loolu lay def sans gagne sans perte lay defee waa wëy ku bëgg tukki ak kuy waaj a dee neexuñoo dëkkal boo ko rey mu rey la mais ku bëgg kuy xaru kuy waaj a xaru ku bëgg a xaru da ngay toog di seetaan mu ànd ak yow dóor la bomb ngeen di indoo mais day waaj a xaru rey ko boo ko rey mu rey la parce que moom nee na allah kulli aal day xaru day dee donc moom nga bëgg ko day dee nga bañ ko day dee moom dafa décider xaru Macky Sall dafa décider xaru léegi yow ngay toog di ko seetaan muy waajal bombam pour nu mu la reyee ne moom bomb bi da ciy takk Ousmane Sonko day xaru mais day damay yóbbaale Ousmane Sonko allah kulli aal parce que bu ma ko yóbbul torox bu ma ko yóbbul dee. moo ko yóbbul ma ne sama njaboot dinañ fi dund lu mburu dajul ci fuur mu teg ci ba kanam pare pour rey tout le Sénégal ndax ñaari doom yu mu am benn jabar mu jaralu ko ko waa ñéegi ñun ñi nga xam ne ñun ñoo ko ëppi njaboot nag ñun suñ yaay yi suñu bàjjan yi suñu tante yi suñu maam yi suñu rakk yi suñu suñu lépp a ngi fi kuy sàmm jabar ak ñaari doom ñetti doom kuy sàmm kuy sàmm benn jabar ak ñetti doom yow ñaata ngay sàmm yow ñaata ngay sàmm man ñaata laay sàmm kee ñaata lay sàmm kële ñaata lay sàmm ba kenn kuy sàmm benn jabar ñetti doom war ñooñu gën a bëgg boppam war nañoo gën a bëgg bakkanam kuy sàmm ñetti ñetti doom ak benn jabar kooku war nañoo gën a bëgg euh, dund sénégalais benn nit pare pour rey 18 millions yëpp pour sàmm ñetti ñetti doom benn jabar kon nag di woo sénégalais yëpp nu mu gën a gaawee ñu génn occuper les rues buñ ko deful comme nu ma leen ko waxee sonn nañ lool ci xeex bi sonn nañ ci loolu sax lottu nañ ci barke alxuraan 2021 ba léegi ñu ngi wax ci affaire Sonko ak accaparé na suñu vie amatuñ vie familiale amatuñu mbokk amatuñu dara taluñu sax dara man mun naa toog trois mois du ma mun a wax sax sama yaay toog ay quatre du ma wax ak sama papa barke dafa mel ni Ousmane Sonko mooy sama papa sama yaay li may wax ci Ousmane Sonko du ko sax wax ak sama papa li may wax ci sa Ousmane Sonko du ma ko wax ak sax sama yaay maanaam jot gu may amal jot gu ma amal Ousmane Sonko temps bi ma jox Ousmane Sonko joxuma ko sama nday bi ma jur bi ma sukk jur joxuma ko sama baay bi ma sukk jur ma jox ko papay jàmbur di ci rey sama bopp bàyyi lépp tey liggéeyu ma liggéeyu ma tey su nalaw ma ndax am na koo xam ni mi ngi am mi ngi York nii ab saxa ndey xam ne ndeysaan nalawul toute la nuit maa ko doon wéttali di ko dalal mais man xamoon naa ni mafia bi dinañ ko teg di ko dalal ba cinq heures du matin ma jóg julli ay mbiru waxi délibéré sax ci laa tëdd nalaw tuuti bu ba dee mais nag dañ ko sëkk di ay gor boo leen décidé wul ngir yàlla ngeen libéré ñu ngeen libéré ñu nañ ah moo laa bu leen ma ñaan jéggal sax bu leen ma sax jéggal bu leen ma nekk ñu ngi lay jéggal xoolal ne lañ ñun désiré wuñu ñun ñu xool nu ñuy doxalee nu ñuy doxalee mooy ñu dem noppal suñu bopp tuuti noppal suñu cër yi tuuti dund tuuti dund parce que depuis deux mille vingt et un dund ma dund tuuti am tuuti mbëggeel mbëggeel tuuti sax am lu ñu dund tuuti dañu sonn lépp nag pour yéen parce que man comme nu ñu koy waxee barke alxuraan awma problème mu hôpital awma problème lépp gratuit la sama karaw bu doon metti léegi léegi léegi léegi léegi ma réew sax réew bu ma wooy ambulance mu ñëw gaare fii ñu ne ma lan la luy metti ma ne sama karaw bi mooy metti moo jàpp sama bopp jàpp sama cerveau bi kulti kulti ñu dugal ma ci oh, yóbbu ma hôpital man leen urgence ñu yóbbu ma urgence yow amoo ko yow mënoo ko sa papa amu ko sa papa bu ne Sénégal amu ko sa yaay mi ne Sénégal amu ko man am naa ko lekk manqué wu ma lekk laa waxuma la lekk ceeb boo xam ne sa ceeb bu bàyyi nga xaar de waxuma la ceeb yoo xam ne sa waaye appendicite nga ciy jëlee ak biir bu biir buy tañak yi biri biri de waxuma lekk gu bon googu nga xam ni buñ buñ ko génnee tey ji yóbbu ko ci laboratoire dara amu fa de lu dul diwlin gu bari diwlin gu bon kese waxuma lekk boobu de lekk boo xam ni dañ koy yóbbu ci laboratoire di ko xool di ko traité di xool di la bindal lépp ne protéine bi temps la ne glycide bi temps la ne lipide bi temps la ne lii temps la ne am na lii am na lii am na lii moo ko composé nga xam ne même benn xaal balaa nga koo yëkkati dañ lay wax composante xaal bi yëpp et cetera et cetera donc situation yi nga ne ma fa te nu ma ci sonnee sax boo defu naan sonnoo ci noonu du dara laa manqué rek du dara bi métro baa ngi nii bis baa ngi nii train baa ngi ne lekk bu baax a ngi nii naan bu baax ndox mu baax a ngi nii amul amul lenn lu ma am loo am amul lenn lu ma am loo am lekk bu baax bi ma am amoo ko naan bu baax bi ma am amoo ko moyen de transport yi baax yi ma am amoo ko situation sociale bi ma am amoo ko feebar faju bi amoo ko et cetera bu baax amoo ko fii da ngay jàng ñu lay fay xam nga jàng ñu lay fay fii da ngay jàng ñu lay fay nga dem def ñu def la defal la formation di la jàngal di la fay ngir yàlla lillahi wa rasul sénégalais yi dañuy seetaan Macky Sall jël Ousmane Sonko suul dewuma élection Ousmane Sonko du dem élection waaye mais Macky sàll mooy kan waaye Macky Sall kan moo ko jur mu jur ñi ñun tamit waaye ñoom euh, Amadou euh, Mamadou Sall ak ak euh, maire Timbo ñoom xanaa ñoom seen meññeef gi nga xam ni sulaari kese la caga kese la bandi kese la mais ñooñu nan lañuy ñu mën a juree ab doomu aadama mu tënk yilif jàpp ay nit bu mat dix-huit millions tënk leen ci loxom benn loxom chaque jour la même chose bële passé ab saa ndey moo newoon procureur ba défendre Ousmane Sonko juge yi def lu leen neex ñu yóbbu ci saaba si mu àtte dëgg